Mansour Diop Sig FM ñoom ñoo ko def dañ ma ko yónnee dama ko seetaan mënu ma téye sama bopp quoi man dama comprendre yéen lan lan ngeen bëgg yéen sénégalais yi ñu ngi bëgg a dee pour ndax ndax coronavirus bi. léegi nag yéen ñun ñëpp ñu nekk fi di jooy na Macky Sall tijji dëkk bi na Macky Sall tijji dëkk bi sénégalais yi yoroon luñ lekk yoroon naan xam nga mënuñoo toppandoor France mënuñoo toppandoor Amérique mënuñoo toppandoor yeneen dëkk xam nga mënuñu toppandoor dëkk yu mag yi am yëpp ñëpp d'accord loolu. léegi comme que Macky Sall mi ñu jiital moom xamul fu muy teg tànkam ñu dem ba Macky Sall fekk si ñu tijji def li ñu bëgg ñu grève sénégalais yi génn chauffeur si génn ak apprenti yeeg transporteurs yi génn ak askan wi manifesté wu bañ tëji dëkk bi yéen ngeen xëy tey defaat seen émission naan docteurs yi nee nañ affaire bi dina leen ëpp loxo dana leen ëpp yu kenn xamul bi kenn xamul fu muy yem loo xamul fu mu yem nag doo ko toggal sa kër parce que yéen yéen a ngi fayee ku weer. weer bu nekk Bougane Gueye Dany fay leen yéen ngi am dépense est-ce que yéen a ngi bàyyi xel sénégalais yi nekk sa àll ba nga xamante ni fayeekoo ñu weer bay dong lañ yaakaar wala ñu dem si luuma yi wala ñu jaay seen ginaar wala seen dugub pour dund. est-ce que yéen ngi bàyyi xel transporteurs yi nga xamante ni dañoo leb seen oto yi si banque yi war war war koo fay di fay traite ay ay quarante millions benn oto vingt millions benn oto soixante million ah nga gaare ko te koog yaakaaru état bi bu assurance bu amee assurance du ko fay. est-ce que yéen ngi bàyyi xel borom place bi nga xamante ni place am am na place yu bëri tëj nañ fu mu toll nii ah yoo xam ne ñu ngi Sénégal ñoo xam ne seen place yi dem nañ xëy sax la ñu yoroon nga xam ne si lañ war a jënd marchandise lekk nañ ko seen kër moment bi nga xam ne toog nañ seen kër si si si moment corona bi est que yéen ngi bàyyi xel loolu dama ne man ngeen a contre système mu Macky Sall waaye bu leen contre Macky Sall Macky Sall jëmm ji amaluñu importance li muy doxal ni mu jiitee Sénégal te neexul kenn moom mooy moom mooy suñu problème ñun. you know mais bu nekkee yéen da ngeen am benn problème personnel ak Macky Sall loolu seen la parce que gis nga Zik FM Sen TV Walfu télé yooyu ñun askan wi ñun yéen la ñuy seetaan ngeen ñuy jox information yi am mais bu ngeen si bëggee dugal nag leneen loo xam ne seen problème personnel la dootuñu leen seetaan ah parce que yéen yéen da ngeen a ànd ak askan wi ñun diñuy xeexal ngeen ne yéen ñun ngeen di xeexal ni situation bi di dundee ak ni muy doxee ñun ñëpp ñu taxaw di leen xool dileen leen suivre di seetaan yéen yéen a fi nekkoon di ñu jàppale naan ñu naan makin na ubbi dëkk bi ka nekk Fungolemi ka nekk Kédougou ka nekk Kolda dund ñu dund bi nii ak nii yéen yéen a doon wax loolu. ba ba dëkk bi génn ñëpp manifesté wu ah ñiy yàq fii ba bakkan rot si ah sa Kaolack léegi yéen ngeen wëlbatiku waat naan. ah euh, état bi na jël ay décision yoo xamante ni xanaa Amérique gii rek Amérique gii nga xamante ni moom moo moo jur corona bi mooy yaayam mooy baayam mooy bàjjanam nit ñi dañoo génne di doxi ba ubbi ba ñu ubbi yenn yenn yenn dëkk yi yenn état yi sax dañu dañoo ubbi seen seen place nit ñi dem liggéeyi ñuy dund ak feebar bi parce que xam nañ ne feebar bii li si nekk lépp ña la ko man a wax sax du du Macky Sall Macky Sall sax xamul lu xew dëgg dëgg lu xew si feebar bi li si dëgg dëgg duñ ko wax kuy seen na come on man yéen est-ce que yéen a ngi bàyyi xel sénégalais bi jaay caaf si mbedd mi di dundal këram di dundee këram nga xamante ni taabuli caaf bi mu teg këram si lay dundalee njabootam fayekuwul weer de yéen ba corona bi commencé ba léegi amul weer bu dee bu leen bogaan gay fay fayu ak yeneen journalistes yi koy def ak yeneen rajo yi koy def yëpp gis nga bàyyi leen nga Macky Sall man dafa am si lu ma ànd moom ba mu ne gan gu feebar bi gan gu ñëw la gu nangu la dem gan gu demul nag da ngay toog dëkk moom parce que loolu la américains yi def loolu la français yi def loolu la ñëpp def ah man mën naa comprendre sax ay amerique ay français yi parce que américains yi ay saay-saay lañ mën nañoo dem sa machine bay defar xaalis di fa xaalis di ko jox nit ñi parce que fii si dëkk bi ku liggéeyut képp koo xam ne yaa ngi toog sa kër rek am na looy looy appalaay loo xamante ni euh, euh, état bi moo lay jox huit cent dollars par semaine presque presque presque presque cinq cent mille par semaine Sénégal dafa mën loolu li li important importance li leen war fu mu toll nii yéen yéen a si média yéen a ngi si rajo li leen war fu toll nii mooy ngeen taxaw ne askan wi dee leen takk ay masque dee leen moytu parce que kenn ku nekk yaa mën a aar sa bopp kenn mënu laa aar. you know ñun nag yéen la ñuy déglu seen rajo yi si FM bu demee bay am yenn niveau yi ñu ne euh, euh, Alaaji euh, Ahmed Aidara ak Euh, Alaaji Mansour la ñuy ñoom ñooy nit ñi gën a déglu ay Pape Alé Niang parce que li ngeen di wax moo ñu amal njëriñ waaye bu ngeen demee bu dugal si xeex bi nag leneen loo xamante ni yéen seen diggante la ak Macky Sall ñun dootuñ ci ana ah. Macky li mu def nii rek la waroon def bu yàgg la ko waroon a def feebar bi moom feebar la Amérique gi jur feebar geek Siin nga ko jur ñu ngi liggéey ñañ bàyyi si kër yi ñu ngi leen di jox ñu dundee ñañ ña toog leen seen kër mais tey ka nekk ka nekk ay kusaanaar ah ka nekk ay ay ay ay ay ay madame Odar wala kan nekk eh, Ayrala wala Ndioum wala sa Bakel wala ka nekk Kidira yéen a ngi xalaat ñooñu ñooñu fayekuwuñu ah yéen a ngi xalaat kan nekk ay Ndofane Legen wala ay ay ay Dingaraay dëkk yoonu yéen ngi xalaat ñen nekk eh, eh, Cap Skirring ah wala ñen nekk ay Simbani Balaso ak yoonoon yéen ngi leen seet yéen a leen xalaat ñooñu nga xam ne amul dara loo xamante ni yaakaar nañ ko si di ko fayeku par semaine wala par weer waaye stop man stop. dama ne nañuy wax te Sénégal rek tax laa wax même bu Macky Sall jaarul yoon am na yoo xamante ni xeex Macky Sall jaru ko bul xeex Macky Sall jëmu ji boo koy xeex tamit xeex ko teg ko si yoon. teg leen wax leen li nga xam ne askan wi mën na leen dégg askan wi dañ leen mere ah parce que askan wi dañoo sonn dañoo leb si bi ñu si bari banque bi xamul coronavirus ah ñuy fay ay traite ah am na transporteur yoo xamante ni fu mu toll seen oto wanteer ko la ñuy def wala ñu dem jaay seen kër pour fay seen i traite ah am na borom place yoo xam ne ñu ngi marché yoratuñu lu ñu lu ñu lu ñu chargé seen place yi fu mu toll nii lañ dencoon lekk nañ ko ana jaaykatu caaf bi ana jaaykatu ndox bu sedd bi si mbedd mi. Ahmed Aidara a leen seen bopp si li ngeen di def waaye parce que comme que ni nit ñaa leen dégg te seen message mu ngi jàll tax na transport beeg ni ñi circuler dox ak feebar bi dund ak moom kenn ku ne nag yaa mën a rawale sa bopp. yàlla bu doon tukkil àdduna du ko du ko wàccee si feebar bi da koy tukkil benn jour mu xëy jeex àdduna jeex tàkk you know waaw ah, come on man xoolal stop yéen Sénégal kenn xamul luñ bëgg ah moo tax yàlla dénk ñu Macky Sall ko li tax li tax ñu mérito Macky Sall ni ñu mel la. yéen fi nekk naan Macky Macky Macky Macky dëkk bi mu tëj xamul fu muy teg tànkam gars ceeb bi nii dugub bi nii Macky xëy nag ne voilà ubbi ubbi ubbi ñu naan ma ma de ngeen may waxi waxi docteur yi docteur yi ñu ngi def seen liggéey. mais nit ki muy dem liggéeyi for ñaar fukk feebar dem hôpital bu dee corona la sax bu yeggee mu am lu mu jox docteur bi wala mu am lu def participer si budget hôpital bi bu ko defee hôpital bi ñu faj ko. wala nga dem naani say reen ak say garab ak jéem a débrouiller ba faju corona bi dafa jóg Amérique fii dafa voyagé dafa naaw dafa sax laaf ba naaw waaye nañu waxante dëgg waaye. corona bi ba pare ba nekk France anamu ana corona bi nekkoon Italie corona du moo nekk Sénégal stop bu leen bu leen bu leen bu leen yàq suñu réew quoi bu leen yàq suñu dëkk ñun Sénégal la ñu am amuñu leneen bu ngeen amee problème ak Macky Sall dem leen ngeen xeex ak Macky wax ak moom mais ñun Macky Sall biñ damaa bëgg ngeen am ak problème Macky Sall Sénégal biñ ko dénk nga xam ne ñoo ko bokk Macky Sall bu jiitewul woon vert zone rouge bi duñ wax waxam man foofu laa leen di xaar yéen am naa lu ma métti ah, vraiment